seraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa combat Ama Baldé ak Modou Lô le combat journal bi xëye mooy chantier bi gën a mag ci chantier Luc Nicolaï boobee combat la le grand chantier de Luc Nicolaï c'est d'organiser le combat Ama Baldé Modou Lô Luc lépp luy naalam lépp luy mébétam ci lamb mooy organiser bi le combat gannaaw ba mu ko taxawalee mu bëri polémique bëri coow lu bëri jaar fi ba mu mujjee fomm ci saison bi mu waroon a am moo waral mu nekk chantier bu rëy ci Luc Nicolaï bi le promoteur kenn dootul werante expertise am ci lamb xarañteefam ci lamb ak mën a laqarte dootu ko werante moo dalee xeli amateur yépp dafa demaat ci combat Ama Baldé Modou ñu bari danoo nooyu waat jàpp ne bile combat nag dootul fomm gannaaw Luc Nicolaï génn na faaw mu am ngir combat bi am faaw lamb ji delluwaat fa mu nekkoon saison bi delluwaat fa mu nekkoon jàngoro ji delluwaat fa mu jóge woon saison bi danoo jàppoon ne dana teel a commencé ñu bari njortoon nanu ne octobre dana fekk saison bi commencé waaye ni jàngoro ji yokkook mesure yu bees yi tax na ñu xalaat la saison bu mucc lay doon waaye fi jàngaro ji jëm bu rékkale wut lamb du am déwén bu jàngaro ji rékkale wut lamb ji du avancé bu dee Pape Mbaye entraîneur Rock Énergie moom li ni mel la xamle tant que coronavirus est là on envisager ce combat tant coronavirus a ngi fi mënuñoo envisager combat amateur yépp doon xaar reprise yu saison bu neex combat yu neex waaye nii mbir mi di doxi jëmul kër bu dee fils na ba tontu ma fi doon wax naan géejawaay gi génn na wax le contraire la mu xam le mooy général mënumaa jommal mënumaa tiital fukki moroomam mënuñu maa yëngal nekkuma fi di tontonteeg moom contrat la nu seq bu ko di nax ay supporteram ka bëgg a bégal ay supporteram mooy Reug Reug gannaaw ba ñuy wax diggantee ma guy gi ba sori ci loor moom génn na ba xamle ne combat bi léegi ñu finaliser ko tout sera finalisé ce démb la ko doon waxee ca kaw Kaolack xam le ne combat bi tey lañu koy finaliser tey ci samedi gi lañu fas yéene xam ndax rëg-rëg guy gi mooy nekk adversaire am déet tey lañuy xam ndax guy gi rëg-rëg mooy doon adversaire am déet bu ñu jàllee ca Pikine booloog seen bilan 2019 gis saison bu yéeme une saison horrible noonee sax la ko journal ba tuddee écurie Pikine mbooloo boobee quatre combats képp am ren benn match nii la ñetti défaite amuñu victoire dégguñu ko gisuñu ko ku wax maam balla waroon a bëre mbay guy gi feebar bi jaar fa yàqu ko match nul ba ñuy wax ca écurie ba bébé ama moo ko am bu dee Cobra commando junior njaga kenn gisu leen bëréwunu seen ñetti defet ya mbaytin junior bu Bosco Sow moo daan Serigne Mbay àndalaa bu muusante daan yaawu jaal ndongolo 2 bu jali piraama coor daan caatu seeraas match nul ba diggante pël bu daarul ak bébé ama jërë ngeen jëf mbokk yi li li gën a fas ci étu